commencé kon euh, àllarba euh, pour yow euh, imam El Hadj Malick Dramé lan lañ war a soppi ci suñu justice ak ni muy doxe waaw xam nga ma biram dafa laal fi problème bi nekk mhm. man pour man problème bi dafa gën a sori justice bi man pour man problème mu Sénégal constitution bi moo am problème parce que dañu dañoo indil constitution boo xam ni dañu ko dañu tuddee copie collé dañ ko jëlee ci tugal indil ñu ko fii te réalité yi du benn malheureusement ma li ma gëm Moustapha mhm. mooy sama slogan am na politicien boo ko fi doon wax mooy réew kenn du ko paccoo dañ koy péncoo mhm. réew mi mën da ñàkk comme ni ñuy péncoo seen émission bi mhm. ñu jël lépp pàcc par pàcc ñu péncoo ko assise yi mooy péncoo bi ah? péncoo bi mooy péncoo justice mais bañ ko yemale ci politiciens yi kese maanaam boole ci les religieux absolument boole ci la société civile les journalistes loolu la ministre bi wax ah? waaw religieuse de civil journaliste ñëpp. mu nekk mu ubbeeku. Mhm. waaye nag dernière décision yi ñu koy jël. Mhm. ñu bàyyi ñi ci spécialisé wu te jàng. man dama gëm ni Sénégal fii ay magistrats yu sérieux ñoo fi am. un juge comme Téliko. Mhm. kenn mënul wax ni sérieux wu. yaa ngi dégg. wane na ko wane na ko waneeti ko. problème bi ñu am nag mooy il faut fi problème bi nekk ñu nangu ko laal. problème bi politiciens yi la. xam lu tax. Moustapha humilité amul ci l'islam xam nga fii tey immunité immunité ah. maanaam ñu jox la kiiraay loo xam ne. yow kenn du la laal kenn du la laal. loolu même yonent sa salaay salaam amu ko woon. Mhm. te su tubaab bi da ci am. waaw yonent bi ko rek dañ ne ma sama doom bu sàccoon ma dagg loxoom. Mhm. exactement amul immunité. fii Sénégal day gis politicien bu sàcc bu këf kees gi daw ak moom. <laughs> gars yi nii non day am immunité. ñëpp ñëpp gis kees gi buy dem. xam nga man dama man damay waxtaan ak ñëpp fan yii damay waxtaan ak benn procureur. Mhm. ma ne ko mais yéen lan mooy seen problème ba mënu leen a doxal justice mu ngi may dégg mais bëgguma tudd turam mënu ma wala imam bu ñu naxantee politiciens yi ñoo bëggul justice ko lu tax mu ni ma ñun àtte justice rek lañ bëgg waaw mais bien sûr mais sàcc alal réew mi dañoo am immunité kenn mën leen a jàpp tey am na ñoom buñ procureur ba waxul yoon de <laughs> xalaat waxtaan la rek uh-huh, uh-huh. ba ma daal c'est important li mu wax parce que tey ministre boo xam dafa def déli mënoo ko topp lu dul président de la République dafa joxe ndigal. ça c'est un problème. loolu problème la tey ab député. Mhm. bu def musiba. defe naa am na ministre bu ko wax sax je crois que euh, euh, comment président bi woon. Mansour Faye Mansour Faye Mansour ah. ne moom OFNAC mënu parce que ministre la. waaw allez député def bu def kenn mënu ko topp. président de la République nag. waaw ah, waxuma nag xam nga tey exemple. war nañ ko cee boole ci réforme mais mais Macky Sall lu ko sauvé. mais Macky Sall réew mu nekkoon lu ko sauvé gum lu ko non sauvé googul sax mais dama la bëgg a wax ni mhm. li mu def ci réew mi yëpp mhm. ci guuta mais tey lan nga ko mën a topp haute trahison kese en tant que président de la République donte moom war nañ ko ko topp parce que def na ko. haute trahison ah oui. waaw ah, sauf que haute trahison ñu bari nee nañ kenn xamul lu mu doon kenn définir ko. pour non non xamul euh, dara haute trahison weesu rey quatre-vingts personnes ci am réew. <laughs> yow jàpp nga loolu haute trahison loolu loolu ñaari nit sax boo leen reyee haute ci caaxaan ci caaxaan nga xam ne yaa leen rey ci caaxaan nga xam ni nit ñaa ngi dee nga xam ne ñu ngi dee nga bàyyi ñu continuer ñuy dee loolu haute trahison la mm-hmm. haute trahison lu weesu nga bëgg a nekk à distance di déstabiliser ab régime mm-hmm. moo tax tey bi ma déggee yéen Walf Quotidien ngeen titré ko mm-hmm. ma ni ma ma ma ni lii mooy journalisme li ñuy xaar ci ab journaliste mooy fi enjeu yi nekk nga wax ci mooy tey ab ancien président boo xam ñëpp xam nañ ni ñi ëpp alal ci Afrique ci la bokk. moom Macky Sall. non Afrique moo fi ëpp alal. ah oui ah oui. à ce point. non man du waxantu xam man Macky Sall maa ko gën a xam ci Sénégal. daa ko seeti. non dama ko xam <laughs> man boo ko passé wax man leen man maa leen gën a xam Macky Sall parce que man sax dama ko xam man xam li mu capable man fan yee déggoo ma ci benn télé ma ni nañ surveiller Macky Sall. heureusement bi ma déggee yéen Walf Quotidien ngeen wax ci. pour yow dañ ko war a surveiller. non waruñu waruñoo yem ci surveiller ko mais Macky Sall ku ko jege woon dañ laa war a surveiller parce que am réew mu mel ni Sénégal nga xam. nit da nga bëgg wax ne ba léegi am na capacité de nuisance moom maanaam tey la ko gën a am. à oh, distance ci ngay gën a <laughs> ci ngay gën a observer mbir yi da nga tiim nii. réew mu mel ni Sénégal nga xam nit ñi dañoo ñàkk sonn ba pare am complexe ci xaalis nga jël alalu réew ma yëpp dem ak moom. <laughs> réew moomu ku la surveillé wul. non ku la surveillé wul xamul réew mi. <laughs> waxuma nag waxuma man waxuma ak waa Pastef. parce que Pastef ñu bari xamuñu réew mi ah, xam nga lool. waa Pastef bi waaw ñu ci bëree bëri. xamuñu réew mi xamuñu réew yàgg naa di ko man man dama réew mi kenn gënu ma ko xam Macky ku ko surveillé wul doo gouverner Macky Sall ku ñu war a surveiller la ak ñi mu àndaloon parce que dañoo sàcc alal ju bari bëri. kon waaj doon wax nañ nañ les opposants la ànd nga moom ñi ko ñi ko ñi ko mettre ah, ñi ko. ñu ko rappeler à l'ordre ñan lañ bu France sax ay tappale la France moom day tappale mhm. mais Maroc Maroc ku leen xam-xam ne seen service de renseignement bokk nañ ci service de renseignement yi ëpp doole ci àdduna bi Maroc waaw ah man dund naa le pays les pays Maghreb mm. Maroc dama lay fàttali benn anne mhm. maa ngi waxtaan ak benn ancien ambassadeur bugguma ko gêner di tudd mu mu ne am na benn ab du Diouf dafa demoon di voyage mhm. ci pays Afrique yi xamatuma ban dëkk la ma wax nee na ma ñu jël ñu jël avion bi Abdou Diouf di dugg sotti ci ndox maanaam ci gasoil bi ñu sotti ci ndox mu ni ma bi avion bi demee bay dekole service de renseignement marocain yi ñoo ñëw signalé ko te Maroc loo mën a wax seen seeni relation ak Sénégal dafa yàgg dafa yàgg ba pare nekk relation yu sérieux hmm. il paraît que même Gambie bi ñu amee problème Sénégal bëgg fa dem def intervention même France bi ñu leen laajee arme pour ñu jàppale leen français yi dañoo bañ. marocain yi yi ñoo leen jàppale. <coughs> kon Maroc ay waxam dañ ko war a bàyyi xel. du du imam Dramé buy wax wala benn waay bu toog fii. kon Macky tànnul dem Maroc. Maroc par hasard non sax man xam naa ni duñ mm. jëndee Sénégal Macky Sall. déedéet Maroc ku leen xam. xam nañ ni Macky Sall parce que Maroc. li ngeen liggéey ak Sénégal amul lu leen Macky Sall defal au contraire da leen xeex seen problème mu Sahel kii bi sa Sahara bi. Mm-hmm. bi mu amee Macky Sall waaw dafa lànk nangu ci am benn position bu leer moo tax man bokk na ci li message bi may lancé yàgg naa waxantuwuma man du ma waxantu parce que xam naa réew mi mhm. te Maroc diggante moom France neexatul neexatul mhm. kon nañu bàyyi xel Macky Sall ci te te mais ab fonctionnaire international waratoo def politique. Hmm. képp koo xam da ngaa yor fonction hmm. international ça sonne pas bien aussi que Macky Sall. ak son statut et tout di continuer di woo waa parteem naan nañu mobiliser. non xam nga xam nga Moustapha ma daaneel foofu c'est important. parce que fonctionnaire international waroo def politique. <laughs> Macky Sall dafa jóge fii nii moom day dem nekki euh, fonctionnaire France. ci service France yaa ngi dégg. kon loolu rek war naa mën a tax mu am élégance génne génne loxoom ci réew mi. Mm-hmm. man nag bokkuma ci ñi gëm ni Macky Sall waruñu koo jëli. ça dépend ci comportement bi muy amee pour ñu mën ko bàyyi mu toog bu fekkee ni dafa toog tranquille kooku dañ koy jox wàccuwaayam en tant que ancien président ndax li mu def yëpp ak li non xam nga lu tax dañuy waxtaan foofu moo wax ci ak responsabilité li ma ci li may wax nag du waxu état mhm. waxu imam Dramé mais bien sûr ab citoyen buy wax mhm. Sénégal baaxoowuñu Macky Sall ku ne xam na li mu fi def lu ko gën a ñaaw amul ci histoire waaye dafa am loo xam ni image du Sénégal ngay protégé des fois bàyyi Macky Sall du Macky Sall lañ bàyyi mais ab ancien président wu Sénégal la ñu bàyyi. ak mhm. condition que mu réglé. yaa ngi dégg bu reglee toog ñu jox ko wàccuwaay boobu man jàpp naa loolu. Mhm. waaye bu fekkee Macky Sall dafa bëgg toog Maroc di déstabiliser réew mi dañ ko war a jëli te jëli boobu am na pétition bu ñu lancé. Mhm. gouvernement bi nag lancé mën naa nekk. non mën naa nekk sénégalais yi lancé nañ pétition bi bu fekkee ni pétition loolu jamaay mënu ci dara Sonko mënu ci dara. bu fekkee pétition bi dafa daw ay 2 millions 3 millions signé ko ni dañuy jëli Macky Sall. ñooñu ñoo yor am nañ légitimité pour ñu jëli ko yaa ngi dégg. Mhm. kon waxu Maroc dafa jar bàyyi xel. d'accord yaa ngi dégg France sax moom ku ne xam na ni. Mhm. fi mu ne nii moom keneen day lay def. ndax France moom ne lu jëmay wax mu ne waaw wax mu ne <laughs> waaw. moo tax seen wax moom amul njariñ torop. d'accord mais moom.